bismillaahi ma jóg way fii sit bu bees bi xëy dikk mooy Lambaye info TV Mbaye de mooy ki lay tagg bismillaahi ma jóg way fi seen bu bees bi xëy dikk mooy Lambaye info TV Mbaye de mooy ki lay tagg déglu leen ma ma woy ko ci baaru bii ñu naa ñukk site bu neex Lambaye info TV cay ñëw ko bëgg déglu leen mama way ko xibaaru bi ñu naañu site bu neex Lambaye info TV cay ñëw ko bëgg ubbi leen seen xel teewlu ma te daal di ñëw dugg site bi siiful leen ko ne wér na wóor bu ñu dëng ubbi leen seen xel teewlu ma te daal di ñëw dugg site bi siiful leen ko ne wér na wóor bu ñu dëng daw si leen abonné moom lu baax la rekk lay wane seen youtube bi ma ñor moo di bay sagal sama dëkk Moustapha yi ko sos tey ku dëkk bëgg ab dëkkam ñun de waa Lambaye dañu jóg defar sama dëkk lay jariñ réew mee tax mu xëy keree fi sit bile kon na ngeen abonné dun la wan leneen lu dul dëgg képp kuy soppe baa nga doon doomi bileb dëkk kër gi sa kërakaay ubbi toog teral dal di dëkk kër gi mooy Lambaye Infos TV daw si leen dëkk yaatal ko ba mu daj réew mi loolu rekk leen dëkk kër gi mooy Lambaye Infos TV daw si leen dëkk yaatal ko ba mu daj réew mi loolu rekk leen dëkk seen image ya rafet na te yiw na sa sa teggine am xarit xarañit man liggéey bi baax ibit dëkk seen image ya rafet na te yiw na sa sa teggine am xarit xarañit man liggéey bi baax ibit dëkk seen xibaar ya di wet dun la wan la yow bul ko sib sit bu baax ñii lay mel sit bu bees ba suñ dëkk man dama bég turu sit bi mooy sama dëkk kon bawal jur leen fonk gan gi mooy ngën gi dëkk man dama bind turu sit bi mooy sama dëkk kon ndawal burlin kon ku gam gi mooy ngën gi dëkk koo xam ne jotagoo abonné dégg way wi jógal farlu nag abonné ci bilëb sitit duñ ko sikk waala mbaay bëgg leen sit bi ñëw na day dox ci dëgg moom du par parloo te du fakk jëf du suul dëgg waala mbaay bëgg leen sit bi ñëw na day dox ci dëgg moom du par parloo te du fakk jëf du suul dëgg siit yi nag bari na waaye cin yi bokk ñuy sami man damay sama cin moom dalam ñakkit ca lay sut képp nag ku ci man way na jóg way lu sit bil def ko nak baaxaru yuk baaxaru bi dama dugg du taasu da du caaxaan sunu sit dañuy tag làmbaay la info tv nonu yok ak beug du taasu da du caaxaan sunu sit dañuy tag làmbaay la info tv nonu yok ak bëgg thank you ko jël merci ñi abonné top leen ñu te ngeen xam ne ñun dañuy dox ci dëgg thank you ko jël merci ñi abonné top leen ñu te ngeen xam ne ñun dañuy dox ci deug kep kuy jaay bëgg koo fesal nañu file sit bi yaat na ndax am na faat fii am na fële képp kuy jaayit bëgg koo fesal nañu file sit bi yaat na ndax am na faat fii am na fële waa bi di néewee nekk doomi gox bi bitim réew mee nekk doomi gox bi bég nañ TV yi làmbaay eeku ñoo waral bégte mi la ñoo xalaat ubbi seen sit bi doomi réew mi bég nañ wala mbay info yal na ngeen amit la ngeen bëgg ñoo xalaat bi seen sit bi doomi réew mi bëgg nan wala mbay info yal na ngeen amit la ngeen bëgg yal na buur aar leen mottalet lépp te bu ngeen mébét gudd fan ak wér yal na leen yal na buur bi defal yal na buur aar leen mottalet lépp te bu ngeen mébét gudd fan ak wér yal na yal na buur defal leen may ñu nag ñu taxe àdduna ak ëllëg ji bu ñu sëgg nan si géej bu ñu rus àdduna ak ëllëg dinañ taxe may ñu nag ñu taxe àdduna ak ëllëg ji bu ñu sëgg nan si géej bu ñu rus àdduna ak ëllëg dinañ taxe ngir daan wa rahmatan min allahi badi xayrun min ad dunya wa ma fiha jami